dañuy weerante ay groupe xal yu jigéen la ñii ne mbaraan dagan na bu dee élève la ñii ne boo dee élève ak lu du élève yëpp daganul ñi ne dagan na nag ñoom nee nañu ci mbaraan mi ci la ñuy jëndee seeni fourniture ci la ñuy jëndee yére yu ñu sol parce que seeni parents joxuñu leen ko des na de question bi des na de ci la ñuy jëndee fourniture ah ci la ñuy jëndee yére mais est-ce que ñi leen koy jox dañ leen koy jox dem ngir yàlla la xam nga mbaraan mooy nax sa bopp nax sa bopp nax nit amul nax nit amul nax sa boppam ndax man amila saalihan fali wa man asafaa jeex na lu waaye def boppam gis nga xale bu jigéen ma ba xale bu jigéen soo amee sa doom bu jigéen fexeel mu regg doom bu góor sax mën naa xiif garaawul waaye doom bu jigéen fexeel mu regg sa doom bu nekk université moo xam bu dakaar la moo xam bu Thiès la moo xam bu Saint-Louis moo xam kaw moo xam partout fu mën ne ni ci àdduna defal le tout ba tenir sa doom ci condition yu baax parce que ku jaaxle dootoo am foo taxaw waaye débrouiller fan la débrouiller jëm mooy cagatul rek est-ce que góor yi léegi ku mel ni Iran ma laaj la ndóoy ndax man dinaa jël sama xaalis rek jox jigéen noonu ci maali foro sama jikko baaxewul noonu yëfi wuyu laay nangu kajoor wax ne ah loxoy kajoor day ñoom day ñoo ko waxal seen bopp waaw bañ demee ba ne loxo kajoor day weesaloo sa doom nekk université di jàng wala mu nekk bitim réew di jàng bala ci beneen dëkk lay jànge yow ma ba ngay bàyyam ñaar góor-góorlu ci bu ko gëj a woo bu ko gëj a dimbale bu ko gëj a seeti ñetti gëj ko gëj a ko gëj a dimbale bu ko gëj a seeti te waxtu woo ko seetee nag fexeel ba ay xaritam ya mu nekkal waajalaale leen soo amee loo leen may nga may leen ko sa doom bu xiifee mën naa def muusiba su mare mën naa def muusiba kon bu baran mbaraan mbaraan mooy naxante rek jéem a nax góor lekk xaalisam daganul ah yàlla ne ne wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatili loolay mbaraan wala taakulu amwaalakum bayna bayna mooy mbaraan wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatili ci mbaraan caaxaan nax nit ki gis nga aljana léeg-léeg nga bëgg cee takk nit mu ne la damay jàng te yaa koy defal lu ne kooku bu sottalee dalay wor dalay wor mbaraan teguwul fen soo fa amee as ndawit bañ mu wor la fexeel ba dee ko jàppale fii am na fi ci ñi fi toog parce que jigéen tumuranke da ko yomb bu fekkee defaloo ko dara xam nga lu lay dalale da ngay toog a toog ñu ne may nañ ko jëkkër fa doon jàngee kuñ ko may ñu ne benn waaye daal buñ toppatoo ñu ne moo ko daan dimbali xanaa xamoo ni jigéen sëy naa góor ti nobu ko wallaay man maa la ko xamu tax ngoro ko ci dugal màbb lim daj ci man sama njàng fayal ma ko di ma dimbale ndax bu ma seetaanoon mën naa fee mooy yàlla jur fi doomi njaal lu ne daj dal ma fi ma ba taxaw ma tey ba ma toll ni mu bëgg jabar du ma rus naa sëy beneen góor kooku mooy dinaa sëy ngir ngor kooku du sëyu mbëggeel sëyu ngor la bari na it ku bàyyi doomam mu ne ci alibi di jàng ñu xëy ñu ne ëmb na ngay xaalu looy xaalu yow ba nga xamee ne mënoo koo toppatoo loo ko bàyyee mu dem taxawul sa doom del dem université seeti ko fekk ko ci biiri xaritam conseiller ko conseil ay moromam yëkkati la nga am boole leen bokkul ak la nga koy jox moom rek ne ko boo ñàkkatee xaay naa ko yëg bu ma la gis nga wax ak benn góor loo soxla naa ko yëg su ma ko amul jaral na ma jaay sama mbaam ma ci uddu ba jox la ko loolu doom jox ko ronko ñum tuuru doom loo amul bolog bii ma sol dinaa ko jaay jox la ko billahi booy dem muy jooy du mooy yàlla ba adduna tukki waaye woote mu ne waaye dimbale ma aw ma débrouiller mu ne ah boo débrouiller kon naaw benn benn Iran rek lu mu bëgg ma ne ca rek lu ma bëgg mu ne ca rek ñuy bëggante di ca nekkante rek waaw saa bàyyi nee na naa débrouiller kon naa gis am Iran di ko def mu may defal li ma soxla ma koy defal li mu bëgg jeex la su ëllëgee bu biiree la mu ne la yaa ma doon débrouiller lii mooy luy laa doon débrouiller